mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen jaar ci euh, Daaru Salaam euh, Maodo Murit liggéey bi nga xam ne liggéey tooli Serigne Saliou la ci njiitu Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke foofu taalibe yi bàyyi ko Touba ak fépp ci rek ngir mën a def niñ ko daan def ñu nekk nag ci kanamu Cheikh Ibrahima Ngom xam ko bokk ci jabootu taalibe Serigne Saliou Mbacke ànd ak mbooloo mu takku nag jóge Touba démb ginnaaw timis ak fii nag daanaka ay une heure du matin euh, ay taalibeem ay mbokkam ay dëkkandoom ak ci wala reem ak amit jàmmam sëñ ginnaaw bi ñu agsee euh, <coughs> euh, asamaan seet na ñu war a euh, dugg ci tool yi euh, lan mooy say kàddu yu njëkk du ñu accès fii ci. asalaamaaleykum wa rahmatulah di wax ci ñëpp di ziar di baale ak maanaam kàddu yi njëkk yi rek mooy pas-pas bi nga xam ne moom mooy soxal ba tax ñu jóge Tuuba mooy ñëw fii mooy liggéey. liggéey bi maanaam ngóob la suñu waxee ngóob la mooy dagg dugub dagg dugub bi tam dafa laaj maanaam dugub bi daanu ñu xool ci suuf bañ a yem ci kaw rek te ñu góorgóorlu itam ndax mooñu fi moo ñu bàyyi te itam liggéey Sëñ Tuubaa amul lenn loo xam ne ni maanaam tëna kon yoonu murit moom lu amu ci kon dugub ji nag ren nag maanaam nii mu nangoo ak at yi jàll moom wuute la kon ci baax te ku ci ne la nga xam ne ni mooy yitte yi ngeen fas ko nga xam ne maanaam mën mën na lu ne ndax euh, ñun 2012 lañ fi jëkk a ñëw 7 euh, kilomètres 500 boobu lañ fi boobu téeméeri fukk ak ñett yàlla dogal suñu yoon dafa ñu ko toog juróom-ñeenti fan lañ koy rawatina nag mbooloo suñu daje kon pas-pas bi rek ci am solo ak xam nañu fi li ñu fi indi te góorgóorlu ci te itam maanaam bañ cee boole lenn waaw liggéey moom moo ñu yëkkati ñu jublu ci liggéey bi nga xam ne maanaam saa buñ fi jógee buñ buñ ci leneen. loola maanaam su ñu tas jeeg tawféexu surtout ak Xaadimu Rasuul ñu ngi siyaar ñëpp di baal ñëpp ak di sant ñëpp itam ndax ku woote ji wuy si la ndax ku mbooloo mi mu dem ñii ñu ngi jógee booru Saalum ñii Njaareem fu ne ak biir Touba. taalibe yi ak dëkkandoo yi ak wëllëre ak soppe yi a ñëw ñuy sant ñëpp ñaan suñu borom faj xaaj ñëpp dafa ñu taw fi Salaam euh, Maodo Mouride euh, boo ñu ko bëggoon xamal ñi lay seetaan xamuñu ko lan mooy Daaru Salaam Maodo Mouride tool kan la histoire bi nu mu demee waaw Daaru Salaam Maodo Mourid nag xëy na ci génération bii fi ñëw maanaam toolu Sëñ Cheikh Saliou waaye suuf la boo xam ne Sëñ Abdou Lahad Mbacké Xaadimu Rasuul moo ko mooma daal di ko jox si si Sëñ Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul bi ko ko joxee nag yàlla dogal ngir am ne ko am naa ci yow yaakaar ndax li waral loolu itam moom da fekkoon nawet bi egsi ñu jox ko joxe tool yi fekk nawet bi egsi te mu nekkoon foo xam ne lu ñu war a gor la te boobu euh, xawoon naa guddi ngir gor ci lañ ko xoo maanaam seetaata lu mel ni belal mu nekk foo xam ne fu tàlli la te am toon am am am ruuj ay yooyu léegi nag bi loolu amee nag fii moom ñu bàyyi ko fi ay jamono mu jox ko sëñ sëñ Saliou sëñ Saliou itam jamono yooyu fekk mu ngi lijjën ci suufu xel koom nga xam ne nii eh, saa bu jàpp ne mën na koo boole itam dafa amoon loo xam ne a soxla mooy xel koom googu ne ni tey moom la fas yéene liggéey la sëñ Tuubaa maanaam lépp sëñ Tuubaa namoon ci mbéy mu mën ko faatu ginaaw bi nag ci ak ak bi biir nawet fekk nawet bi doog ko tàmbali eh, eh, ci la woo sëñ eh, Cheikh Sary Cheikh Ahmadou Sary sëñ lañ ko tudd ñu bari ñu wax sëñ Cheikh Sary Cheikh Ahmadou Sary Mbàkke lañ ko tudd bi mu ko xool si ko bi ko xoolee ba ñëw comme kilifa yi ni ñuy doxalee rek mu ne ko nag suuf suuf soosu day sa bàyyi sëñ Abdoulaye moo ma ko joxoon waaw ngir uh, am ci man yaakaar yaakaar googu nag itam am naa ko ci nga xam ne nii ci jamono boobu si loola si mën a ko su suuf galawee ngeen dem ta fas yéene ko tàmbali yàlla dogal loola comme ak murit rek ak itam nit ak ak kilifaam ndax yoonu murit mboolem njaboot gi yëpp ay taalibe lañ waaw maanaam kilifteef googu daal moo ko ñulug ko lool ba nga xam ne bi mu demee ci biir ci biir nawet bi ñi nga xam ne ñoom la ñoo ñoom Abdou Touré tey boobu ñu woon ci daara njàppandal foofu la leen jële ci diggu nawet indi leen fi ñu ñu tàmbali si nawet fii njalbeen ba boobu ñëw doon roote ji ca ndox boobu benn néeg la fay moo moo fa am moom moom lañ fa defal kon daal fi daara la comme xel ko nag laga nag daara la boo xam ne nii dañ fiy jàngale alxuraan di fi yare agitam difi tagate ndaw yi ngir sa ku fi joge eh, manam tay eh, ci walu aduna buntu aduna do ci jaar to fu way joge sa fo ne fo dem man faane ngir yar gi nga xamni ni manam eh, mom lañ lay tokki tokki lay ñu leen di tokki fi agitam ñu leen di nampatal ah. fan la tollu daru salam mawdu wa daru salam mawdu murid nak sa buñ ko waxe manam mm, ci suufu Condok Condok ñu bari miin nañ ko digganteem ak Condok après trois kilomètres deux kilomètres deux kilomètres ci lay war a léegi nag am itam yeneen dëkk yoo xam ne ñoo bu njëkk nag saa boo fiy yaa ngi ko doon jaaree Koupentoum wala nga jaar ko mbay mbay soo mbay mbay nga jaar noonu ñëw gént gént gént gént paaka wut si wut si wut ñëw forêt

kon xam naa ci kanam incha allah ñu fas yéene dem ci tool yi. jërëjëf ñu ngi sant ñu leen sant yéen itam ci Tourist TV ñaan suñu borom defal leen taw bi ak ay seen euh, bokk ci seen yi gën a mag suñu borom def ci barke. Mm. ndax barke rek a ci am solo ci barke daal salaamaaleykum ci barke liggéey bi feneen amadou Fatick barke si saan barke si saan. kon mbokk mi lii kàddu yu njëkk yi la ginnaaw bi nga xam ne agsi nañ ci xaaju guddi gi. xëy nag war a ndekki ngir mën a dugg ci tool yi incha allah ñu fas yéene topp liggéey bi rek suñu kéemtulaayal kàttan ba ba muy mat ñu bokk àndaat dellu Tuubaa incha allah.